ñu fexe ba nga xamante ne ni ñi nga xam te ñooy suñu njiit te uuf ñu boot ñu ministère de la santé ñu ngi ñuy jàppale sax mais ñu gën ñoo doole jàppale ci li nga xamante ne ni mooy trombolise bi ak prise en charge bi scanner yi ak garab yi ba nga xamante ne kii feebar am AVC bu ñëwee hôpital bëgg a faju dina faju ci coût boo xamante ne ni woyof na à travers association ASP AVC

handicap au niveau mondial bu la jàppee ba bàyyi la foog nga gis nga am ay séquelles ci côté loxo wala tànk wala sa sa làmmiñ dem ba mënatoo wax te nga nekk père famille boo xamante ne yaa waroon dundal seen waa kër wala nga nekk jeune boo xamante ne yaa yoroon sa njaboot kon kooku noonu war nañoo fexe mu mu bu feebaree rek ñu xàmme si ñi gaaw ko yóbbu hôpital mu mën a am accès à la parce que médecin yu koy mën a def ñoo ngi fi jàng nañ ko mën nañ ko kon li ci des rek mooy état bi ak bonne volonté yi jàppale ñu ba produit boobu noonu di disponible ba ku feebar rek mën na koo administrer ba nga xamante ne ni doo ànd ak benn séquelle bu soobee yàlla. waaw récemment rek am na koo xamante ne ni doomam dafa amoon AVC te doom ji moo yoroon kër gi waaye doom ji dafa dem ba nga xamante ni dem na ba réanimation def fa mat 2 mois ndax sonn AVC sonal ko kooku xam nga mënul dara seen waa kër mais dem nañ ba association bi woo nañ yaayam mais dañoo ñëw bëgguñu ko wax may nañ la. mais yëkkati nañ benn somb takku pour muy dem jaw bee di ñëw mais bañ ko ko joxee ba pare dañ na ko ni que ah

ci biir euh, ci biir euh, kii société bi ba ci tabaski bii ñu jëm nii sax am na ci ñoo xamante ne leen dimbali nañ leen tamit ci wàllu ci wàllum tabaski ndax ndimbal tamit duñ ko bëgg di wax tur yeeg yooyu noonu ñu ci demee noonu waaye ñi ci jàllaale tamit di sensibiliser ci tabaski bii ñu jëm ñu wàññi suukar su bari yi ci jus yi wàññi xorom su bëri si wàññi tamit yàpp bi nga xamante ne dafa am graisse ñu wàññi ko bu baax a baax a baax te ku ci mën a bàyyi bouillon yi nga bàyyi ko te jël épices yi loolu daal la ñuy sensibiliser. waaw ñu ngi accompagner maladie ci ay VAD lépp ndax bari dem démb Ndiaye rek ñun Ilimaan ñu ngi dem ci marché yi di waxtaan ak suñu yaay yi parce que accompagnement bu njëkk mooy nga fexe ba nit ki bu ko dara dal loolu mooy accompagnement bu njëkk moom lañ doon def korok di wax pour ñu montandi ko bouillon yi.

chaise roulante bu ñu jënd sax bu ñu ko am da ngay gis association mooy yëkkati chaise roulante jox la pour ngay génn ñu toog ci kër gi yenn saay sax say xarit mën nañ laa buux ba ci télé ba ngeen toog waxtaanoo doo ataaya mais ñu bañ laa bàyyi ci kër gi nga tëdd fa rek dootoo jóg ngay am ay escar ba escar yooyu sax moo lay yóbbu dañuy def tamit les samedi les dimanches ñuy dem seeti ji maladie di waxtaan ñu xool seen évolution am na ay tamit déambulateur yoo xam ne mayee nañ ko ba ci neurologie sax dem nañ ba foofu noonu may leen foofu sax ay aspirateur ci biir neurologie Nous avons créé l'Association 2019 octobre 2019 avec léegi Yagoul, mais de à travers partenaires la maison de l'eau ak Opelia ñoom ñëpp ñoo de ba personnes di dimbali malade Nous faisons de ñu gënaloon ki di nuyu rek mbokk internet ñu naan leen salaamaaleykum man sama tour moy Elimane Sey li nga xamantene mom moy aspect AVC ma leen fi représenter comme étant le point focal au niveau de Yeumbeul banlieue waaw yaakaar naa ne événement bi maa ngi koy créé man ak ñoom gannaaw bi nga xamante ni kii sama waajur bu góor ñu ngi tombé li nga xam ne moom moo ko dal muy AVC ñu sonn si lool famille bi sonn si lool ñu jaar si ay circuit yu difficile difficile coût bi cher trop trop trop trop trop may gis ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk réanimation métti bu mu métti seen waajur yi ci laa jékki-jékki ma ne pourquoi pas mu inclure wu ci li nga xam ne mooy aspect AVC un yaakaar naa ne jaamu yàlla bu sëkk mi ci biir de deux

keng bañ dem hôpital di fa fajoo moo gën mi am AVC ba ak yenen sous yenen yenen difficulté di am ci biir motax euh, gannaaw loolu noonu inshallah ñu ngi ñaan gannaaw buñu joggé ci événement bi dañ yokk sensibilisation bi dañ yokk waxtaan ak askan bi ba nga xamanteni dara du len dal ensuite tamit dañ leen wax tamit lan moy signe AVC yi pour ñu mën ko xam parce que AVC feebar bo xamanteni ni bi ñu waxee signe yi am na ñoo xamanteni dañ koy négliger parce que nañ gis signe bi ci ñoom am ñoo xamanteni ne am bop yu metti fréquemment pendant des temps du ñu xam ne yooyu signe mën na nekk signe AVC ñi nga xam ne dañu jékki-jékki am ay seen i bët di ful ñu jékki-jékki mel ni ku silmaxa dañuy jëm jëndi ay verre rek sol te xamuñ loolu noonu mën na nekk ci signe AVC maanaam jortu ko njëkk la njort ne AVC la su nekk su nekk may askan da ngay njëkk a jot ne demee scanner nekkul AVC nga ne alhamdulilah nga dem seet leneen bu ñu la demee scanner nga ne alhamdulilah parce que teel nga jël naa ne loolu noonu dinañ na ci ñi nga xamante ni ñooy askan bi nga xamante ni parce que xam ne service neurologie de Fann kase moo am capacité pour traiter yenn AVC amul benn médecin am na médecin yoo xamante sax di nga leen jàkkaarloo ñoom duñu la wax ci AVC lu sori parce que seen i xam-xam màcc ci dool noonu mais di nga xamante ne seen communauté Japon xam-xam màcc kon nag li nga xam moom mooy accompagnement bi nga xam ne dañuy accompagner askan bi mooy bëgg nañ suñu autorité locale yi def de telle sorte que ba nga xamante ni tant que mi nekk hôpital Fann nan la def ba nga xam ne dañuy faciliter de transport bi nga xam ne ñoom ñoo yor am AVC fii ci banlieue bi bay mën nga xam ne mooy seen i thérapie nga xamante ni mooy seen kinésithérapie yi nga xam ne ñu ngi koy def bëgg na jël seen accompagne yi bañ na ko ba nga xamante ni aspect AVC dem na signé en partenariat en collaboration ak benn club bi mi ngi nekk en Ngor boo xam ne dañuy def thérapie bi au dans l'eau nga xam ne paa yi nga xam ne dañuy rus di entraînement ci mbedd yi dañ leen yóbbu ci biir géej ñu fekk seen i morom fekk ñeneen ak ñeneen ba nga xamante ni dañuy mën a am joie de vivre dañuy mën a bokk ci société bi ASP AVC mi ngi nangu loolu te mi ngi koy def si ñeneen partenariat bi am na ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni si ñeneen partenariat bi di leen xaar ci ay anam yooyu noonu incha allahu rabbi ci loolu yi